salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk jullit yi mbokk taay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen baalu àq di leen baal àq euh, di jiite si siyaar bi mun taxa Mbakke di ñaan suñu borom yàggal te wéral ko euh, di siyaar bu baax a baax sëriñ Cheikh Jëmm Fall di ñaan suñu borom yàggal te wéral ko euh, di siyaare mbokk taali bi yëpp di baalu àq mbokk taali bi yëpp di siyaare waa Kawlax yëpp ndax ku gis tey Kawlax ni mel xam ne am na gan gu mag gu fi tebb am na gan gu yiw gu fi tàbbi bu ñu gan gu mag gan gu yiw mooy suñu xalifa muy xalifa ak murit muy sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachiru moom moo tàbbi tey ci Kawlax gi nga xam ne euh, moom dëkku baayam la woon wax dëgg yàlla euh, te ñëpp xam pas-pas mu am si dëkk bi ak yëggum-yëgg waa Kawlax a ah, lu gis mbooloo mi ne si suñu ginnaaw xam ne kat ab xalif suñu Tuubaa fu mu tàbbi ah murit yëpp loolu dañu di jàmm ñu ngi fexe di yëngu fexe lu ñu mën a def ba togg yi teraanga togg yi xéewal mën ñu ko xalif suñu Tuubaa loolu moo war a yëngu yi tey fi nga xam ne mooy arrêt Fall Yaram ñu gën koo xamee ci liggéey li Poroxaan sox maam soxna jaara ah, te xam ne lépp lu yëngu si wéru Sëriñ Tuubaa gi rek dugal na suñu loxo dugal na suñu tànk dugal na suñu poos lépp loo xam ne Sëriñ na ko bis boobu tàggee na bàyyi na suñu yitte yi bàyyi na suñu bëgg-bëgg nekk si bëgg-bëgg sëriñ bi ba keroog suñu borom dogal yitte yi ligal la mat kon nag moo war a tey suñu suñu yëngu moo war a tey waa arrêt Fall Yaram yëpp maasoo doon benn jël seen alal muy seen dërëm seen ñaar dërëm boole ko ngi toggi xew ngi yokk suñ suñu Muntaxa Mbàkke Basiru kon loolu moo tax tey ñu si yëngu am ti moo tax ñu daje fi tey waa Kaolack yëpp waa koñ bi yëpp ñëpp jàpp nañ si ba fexe ba liggéey bi mën a jàppandi kon si loolu képp moo tax ñuy yëngu moo taxee tamit wax dëgg yàlla suñu bëgg-bëgg yëpp rek mooy yàlla bëgg-bëggu sëriñ bi te bëgg-bëgg sëriñ bi kat dara gën a cee jiitu di ko joxe kon nag loolu moo tax ñuy teew fi kon bu ko defee euh, dañuy jox suñu jëwrin euh, sëriñ aan moom it am ay kàddu yu mu ci sànni nga xam ne jëm ci liggéey bi nga xam ne moom defal suñu Muntaxa Mbàkke te waa Alfaraay am di ko def bismillahi fii niin ak daala yàllaw sawi baqa abi di fii ka yàllaw yaa man lawol amru yaa man laa sariika law وسي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليكي بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله